université mu ne institutions yi léegi kenn xamatul lan la vraiment c'est le kaw nee na euh, léegi euh, toutes les institutions ont été euh, violées affaiblies et déchirées loolu mooy constat de sew ti lay Fall également moom nee na nee na franchement université yi moom démarré léegi violence yi moom noté na violence yi nga xam ne ñoo am si université yi surtout à Dakar nga chaque fois bu dul étudiants yi c'est d'autres types de violence yoo xam ni ma nga fa euh, am na nag ñuy wax nag si militants yi ñuy ñuy exporté xam nga am na sax koy joxe des noms symboliques yoo xam ni ñànku les comédiens et comédiens et tout ça ak fa ñu jógee ànd ak nit ñi dem importation euh, démb rek maa ngi dégg benn dëkk boo xam ni xale bi si oto yi mu nekkoon ca la daano ba ñàkk si ba ñàkk si kenam est-ce que nag c'est dans l'espace euh, géographique fi meeting yi amoon wala bon loolu ça ça truc nervi yi également am na ñu si wax nee na vraiment jàmbaarloo yi bëri na te euh, ñoom nee nañu euh, am na nag ñu ne gendarmerie lañu mais loolu euh, le président dina si ñëwaat dañu ne nervi yi maanaam ay nit ñoo xamee ni nekkuñu policier nekkuñu dara nekkuñu gendarme dañ leen a jox doole jox leen ay matraque ñuy attaquer population yi nga xam ne ñoo sol ay morceaux yu xonk wala en tout cas di yuuxu cortège bi nga xam ni mooy cortège président Macky Sall loolu je crois que dinañ ci ñëwaat léegi en attendant d'avoir d'autres réactions professeur sur le thème waaw je crois que thème bi c'est important mhm. même su fekkee ne le sujet dans un premier temps ni nga ko jëlee c'est le bilan de la campagne nañ ko sax de la tournée du président de la République mhm. euh, dafa am une double face mënuñu ko séparer ak politique c'est les deux faces de la même médaille Euh, je pense que président yi fi jaar yëpp. quand ils allaient faire leur tournée les autres disaient que c'était des tournées euh, politiques donc c'est c'est fondamentalement politique. Euh, donc il en profite pour euh, natt boppam euh, pour mobiliser basam am. ça c'est ce qu'on a vu. mais je crois que au-delà de cette action dañu war a xool lan la fa defi woon moo di la question des infrastructures man je suis je l'ai toujours dit dans ces plateaux je suis preneur pour toutes les infrastructures parce que les coûts aujourd'hui def ko léegi moo gën ngay xaaraat parce que boo xaaratee dafay devenir de plus en plus cher je racontais l'histoire de ATT pas ATT euh, Alpha Amar Kanare bi mu doon def le deuxième pont euh, à à Bamako mais ñëpp dañ ko doon wax ça ne mange pas comme fii rek les infrastructures ne se mangent pas mais su ko deful woon tey fan la Bamako jëm quand Abdoulaye Wade mi ngi commencé def autorité bi mais ni ñi ànduñu si woon mais tey su ko mi ngi wax naan la valeur de la terre mais ça c'est lui qui a commencé euh, bind xàll yoon yi nga xam ne ci village Lébu yi mun leen dafa leen ko waxoon d'ailleurs mu leen yoon yi may defar dafay tax seen am-am yokku parce que seen valeur suuf bi dafay mujj yokku. Hmm. ça c'était la vision de Abdoulaye Wade et qu'il avait expliqué euh, clairement. avant ma ñëw sur ce que je pense intéressant je vais quand même lancer une petite pique parce que dans les euh, Pape Mayel indi na fi léegi toute une batterie de listes. Hmm. wax ni def nañ lii ba génn ay chiffres et cetera et cetera mais Pape Mayel la route de. de Richard Toll Ndiouk c'est le MCA c'est le MCA qui a été obtenu sous le magistère de Abdoulaye Wade donc route boobu euh, nan lañ ko mën dugalee ci seen bilan léegi je me pose cette question quoi euh, cela n'empêche en rien euh, que le président Sall a fait des investissements mmh. Euh, parce que comme je dis tout le temps wax ko fii moi j'ai participé à des gens qui ont évalué le PUDC avec le PNUD li mu def ci les pistes effectivement, donc c'est les voies de communication, mmh. c'est l'eau et c'est l'énergie. Dans cet espace rural-là, euh, euh, c'est euh, l'impact. Parce que les routes, ça va jouer sur la santé, mmh. sur la mortalité des femmes, etc. Donc on l'a on, on vu. L'eau aussi, la potabilité de l'eau, faut jouer sur la santé des populations. D'ailleurs, en passant, on l'avait dit la dernière fois, sur une, sur une, sur une amélioration de notre... C'est un paradoxe. amélioration système de santé au Sénégal depuis le début hein, c'est pas seulement aujourd'hui moo ñu may dividende démographique bi ñu am parce que mortalité maternelle kii kon infantile yi plutôt dafa wàññeeku maternelle tam mi ngi mi ngi beesewu mais mortalité infantile dafa wàññeeku lu bare grâce au vaccin grâce à la prévention et cetera ba moo tax xale yi ñëw bare mais en même temps amuñu temps wu dëkku pour mën a tabax <laughs> infrastructure ay université ay écoles ak même des structures de santé pour les accueillir donc c' ça le le le le drame que nous avons aujourd'hui donc euh, pour man bu fekkee ne euh, comme li mu wax euh, li mu def dans cette zone là bari dans de Maayo bi moom laa lay wax man la euh, les zones de Podor de Matam et cetera moi j'ai fait une étude 2007 2009. Mmh. sur la région de de Matam dem ba ay Sadel ak yooyu xool lan lan moo fa nekkoon aujourd'hui aller à Matam c' est facile. Hmm. entrer dans ces routes c'est facile ouais. il y a des routes il y a des hmm. voies de communication ça c'est c'est certain keroog ñu ngi joxe réduction de temps quand bi nga xamee ne léegi oui oui ku jógee donc ça euh, ça c'est indéniable c'est des choses vues maintenant euh, la question mooy l'arbitrage euh, fan la ñu war dugal xaalis bi c'est que euh, muy commune bi mooy li may wax commune la même chose boo ñëwee au niveau miniature xaalis bi benn fond bi benn la léegi fii nga koy dugal voie A voie B wala voie le problème c'est l'arbitrage avec les populations comment on a décidé parce que Pape Mayel def ni ak moom tamit li mu wax jaxate le président a une vision c'est vrai quand quelqu'un travaille sur une vision son résultat tu le vois pas tout de suite mais en même temps les contreparties que ça a moom mooy am naka nga koy concilier avec la question politique te seen politique de décentralisation intégrale boobu mhm. jural na leen problème parce que aujourd'hui le type ce qui se disait commune rurale pour moom c'est une ville aujourd'hui et il va avoir les mêmes exigences tase ak réseaux sociaux yi ñëw télé bi nekk ngay gis li Dakar am yow doo ko am dootoo ko supporter. Mhm. c'est ce la là auquel n'importe quel politicien qui viendra dans ce pays. Mhm. dina mos a jànkonteeg moom. donc képp kuy wax aussi da ngay réfléchir par rapport à toute cette situation là pour mën a def ta Mm-hmm. pour mën a def ta critique. comparaison day am souvent entre ces localités aujourd'hui nee nañu leen commune ngeen. moom si boppam sax Macky Sall moo doon wax naan c'est injuste lu tax monde rural bi ñu koy bañ jox ak yooyu. or je crois que c'était pas une bonne approche parce que ne peut pas tout de suite niveler tout le monde c'était pas possible il fallait accepter mm. l'évolution graduelle. ku nekk étage par étage ñu xam léegi nag dañu ñoom dañuy taxaw foofu toog ñu tan nangootuñu am néegu ñax nangootuñu am néegu ban dañu war am lii dañu war am lale am lale parce que citoyens sénégalais lañu ils payent leurs impôts quand moi je travaille dans le Kédougou ou dans le Sénégal oriental avec les habitats dispersés je leur disais mais euh, Dakar c'est facile parce que boo fa investir ndox bi di nga ko fayu de telle manière que di nga dëggaat dante tes fonds mais yéen bu kenn dëkkee fii kee dëkk à 15 kilomètres kee dëkk 20 kilomètres mais pour amener les infrastructures, ça a un coût, quel est l'impôt qui va supporter ça Aujourd'hui, grâce au solaire, sur l'énergie, on va pouvoir régler ce type de problème. Moi, je veux nous mhm. discuter de manière objective, avec des critères et des arguments par rapport à notre futur. Maintenant, modeste, le problème, c'est la question de la politisation de, cette, de déplacement-là. Euh, politisation de ce déplacement, moi, je pense que les acteurs politiques, comment on est, on sa campagne. nga defaral ko sa bopp ak naka naka mu la naka la nu mu la neexee je crois mais je ne vois pas le lieu de faire une confrontation de campagne bu bu bu bu bu Hélène defee ma jóg ne maa ngi contrôler Hélène def ku nekk na dox doxam bu ko defee population yi ñoom daañu mën a daañu mën a juger seen bopp parce que man je n'ai pas compris affaire nervi yooyu nervi lan la fay uti je ne comprends pas peut-être qu'il va m'expliquer mm-hmm. nervi yi kañ lañ doon door ak kañ lañ doon def lan ça veut dire Euh, euh, man su bëggee dem Hélène moom tam bëgg bëgg contre li may def xëy na loolu mooy indi confrontation mhm. bi mais suñu bàyyee ku nekk heure bu ko neexee mu jóg dem wax ak population yi nit ñi xoolal seen bopp mu muñ arbitrer donc dañu war a apprendre à faire des politiques civilisées mënuñu nekk 2021 ñuy nekk fi di tojante bopp tous les jours je crois que ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut honorable yow lan moo la gën a marqué ci ci tournée président bi il y a eu beaucoup